Mbadiar TV seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala siyaar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement wooteel 76 751 71 ci kaw ca kanam abonné te bés kolos bi ngir nga mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar 76 la 751 71 45 Médar TV daal gaw tey la masa am ma tudd leen Serigne Habib Sy Aynu Maadi def di sama wëllëre bu amul morom te ñi ko xam ci kër gi barewul dinañuy faral di échange lu bari mag moom daf may faral di wax ni coono bi may daj ci jàng sëriñ Cheikh coono bu ni toll lay daj pour jàng loo wax ma ni ko def di mbaaxu mag ñi rekk waaw waaye dañu bàyyente xel ñun ñaar ndax ñaari yëf bu jëkk bi mooy langage de vérité bi bu ñaareel bi mooy franc parler bi waaw amee ku ñëwee dëgg la du ko làmbaatu waaw xam naa looloo tax yàlla xiir kenn ku nekk ci ñun ñaar ca ka des ñuy def échange bu mel noonu maanaam dafa bari ñuy soow nan ñun dañu beru rekk sunu bopp rekk lañu faale te fekk njuumte la waaw Modou Fata Sarr ñëw seet si ma oustaz Cheikh mii moo ko indi ñuy waxtaan ma ni ko oustaz Modou Fata mu ne ah, mani ko est-ce que xam nga lenn mu ne ah ko ku naw Cheikh bu Sëriñ Mansour la ma ne ko ñaar moo tax ma naw ko bu jëkk bi mooy nit ku teey la bu ñaareel bi mooy xumb xumb yi doomu sere yii di bëgg gis naa ni bëggu ko yi moo tax mu neex ma mu ni ma jar na mu xam ko nag man ko ba des man ko ki ñoo wax sëriñ ba Sy Abdou nga ñu gën ko miin ci Ndiol Fouta waaw ma ni ko ku ma neex la ndax moom it langage de vérité ak franc parler bi ci des mooy ci wàllu jol ku simple la waaw mu ma baax na nag ñu xam ko pour wax la nit ñee xamul loo xew rekk mais liy dox a ngi dox ma toog fan yii xalifa saar bii mbokki yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rawatina nag yéen ñi nga xam ne xam ngeen bay jaar ma bu baax ci faj bi nga xam ne mu ngi koy faj fajub aada ak cosaan waaye it xam ngeen koy ci wàllu ñaan yi nga xam ne daf koy falal di ci dimbali doomu aadama yi moom mbay jaay ma jaar nag mooy yëgle ni que képp koo xam ne amee nga jafe-jafe lu jëm ci wàllum ndoxum siti ku rëbët jàngoroy kajoor moom Mbaye Ndiaye Madiar nag mu ngi leen di yëgal ni ku ci amee yooyu yëpp nag bul jaaxle ñëwal yàlla may na ko ci bu baax a baax moom nag xam ngeen ni ku ko soxla danga koy fekk foofee ca Madiar wala nga woo ko 77 654 53 72 77 654 53 72 ñi nga xam aussi dañoo far wala jëkkër rab ak ñi nga xam aussi bëgg nañoo xam seen avenir ëllëg ñoom ñëpp nag nañu dem seeti ki nga xam moom mooy Mbaye Ndiaye ñu ko lool ci ak pas-pasam ngir jàppale doomu aadama yi Mbaye Ndiaye Madiar mooma nag moo leen di yëgal ni ku ko ci soxla ku ne rek mën nga ko woo ci numéro yi wala nga fekk ko foofee ca Madiar wala bu ngeen nekkee ci diwaanu ak li ko wër mën ngeen faa xaar